mbokki Leewtoo TV ñoo ngi leen di nuyu baax a baax mbokki internet yi leen ziyaara bu baax eh, leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen yéen a nga a xam xam nga tey ñëwaat nañ rek ci beneen làmb eh, tey Manga 2 organisé le roi des arènes eh, tey ci arène Adrien Senghor teg fii 1 million 1 million bi gis ngeen danañ dem ci biir léegi yàgg waaye sans pour autant tarder da ngay xool fi ñu taxaw tey di présenté takk der yi ak seen liggéey ñi nga xam ne ñoom ñooy organiser ak seen liggéey kenn ku ne ak seen liggéey waaye lii mooy làmb kenn ku ne rek danga am li ngay def ñoom nii lu ñu rangee gis nga ñu ne defee fil képp ku dugg daañu la fuyee te xool sa saak xool li nga yor xool say poos gis nga yéen a gisandoo lii mooy liggéey bi boo ko defee eh, képp koo xam ne da nga dugg ci biir eh, mën a nekk à l'aise mën a nekk en sécurité kon ñoo ngi leen di jaajëfal ñoom tam di jaajëfal le roi des arènes Manga 2 daañu ko gis léegi yéen a gis bunt bi gis nga nu mu demee orientation bi yàgg yaa ci xool kenn ku ne ak la ngay def dañuy dugg ci biir yàgg xool ambiance bi ci biir champion yi bëri ñëw nañu ndax gis naa fi rëg-rëg gis naa fi bu Senghor gis naa fi euh, Mbudaay ne bu Ngunjaan gis naa fi ñu bëri waaye mun mënuñoo lim amateur yaa ngi toog euh, mbër ñu lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. waaw mais yow yaay kan. général bu Malika. Ah. waaw. mbokk yéen a gis ah mooy xele bi def jaloore bi yàggul dara. waaw waaw dafa leer dafa leer. ñu ñëwaat rek taxaat jaaj yi di compétir rek yaa ma gën a xam waaw waaw. te ñu un million lamb ji xaw a diis wala nuru ko. waaw yow loo ci wax. ragaluñ loolu. Hmm. lu mu gën a diis gën a baax. lamb ji lu mu gën a diis gën a baax. noonu la demee waaw. jeex na tàq. ah ndeysaan muy général Malika. Eh, daañu dem ci keneen yàgg. ki mooy Ibou Senghor numéro 2. Ah, Ibou Senghor ñu ngi lay maa ngi lay fi bu baax grand. waaw mais Ibou Senghor tey manga moo tëgg. moo ah. tax yéen ñëpp ngeen ñëw wala ah, nu mu la noonu la di ñaan yàlla rek nawoon fa woon rek am ma jëlaat ko quoi dimanche man maa ko jël di ñaan yàlla tey nit ma ko quoi incha allah. Uh-huh. ci kattanu yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko def waaw. ñun de sañ ñoo wax amin yàlla. incha allah waaye daal ñaan lu leen war ren am problème yaa ma gën a xam bàyyil noonu rek naa ko jaayante ci kattanu yàlla incha allah uh-huh. amul benn problème maa ngi lay bëggee bu baax nag garaaw bu baax nga maa ngi sant bu baax di la gërëm dégg nga. ngel jon gëj na fi. ah ngel jon gëj na fi. ngel gëj na fi nomu nañ ko trop ndax sama waay la moom itam wax dëgg bokk na ci li koy neexal trop bilaahi nomu naa ko trop ah. gasu bi bilaahi gasu bi. Ah, ah. amateur yi nomu nañ ko mbër yi nomu nañ ko surtout. gëj ngaa sotteeku suuf de. non gis nga <laughs> sa waay moo nga la des fois rek day yëngal suñu yaram tàng yaa ma gën a koy nuyu passage waaye li ko jàpp ko yàlla suñu borom may ko wér ak wérle mu mu ñëw delluwaat ci liggéeyam quoi ok waaye. bu Senghor. Reug Reug ñëw na. Mbudaay na ñëw albarka Kayre ngi noonu. xale yëpp ñëw na ñàpp pratiquement. gis nga kii mooy Mbudaay na. Bungu Njaan Mbudaay na ñu maa lay fay Père Birame. Ah, tey moom euh, yëf xaw naa diis de. waaw diis na mais garaawul. Ah. ñu compétir rek. mës nga fa finalu ak Reug Reug. waaw waaw waaw. waaw moom ñëw na de. mais dara mbaa ma jaar ko fa rek waaw. wala nga njëkk ko. waaw ah, yomb. non du yomb. du yomb waaw. du yomb mënul yomb fi ay champion kese ñoo fi daje. waaw mais góorgóorlu rek xam naa moom li ñuy liggéey moom xam naa ne lii kii la rek mais patron Ndiak lu ñuy teg lii nii mënuñu jaaxal quoi dañuy compétir rek lu yàlla lu ñu yàlla may rek ñu jël poulain ci ngel jon waaw dara ñun tam nañ ko. waaw mais lu xew gars yëpp dañoo wuy si ci manga la wala lan dara xam nga marom manga moom borom baax la bu wootee ñëppay wuy si waaw. waaw ñun loolu di dara moom lii moom compétir rek. waaw comme yeneen ñëpp ñëw la ñu est-ce que affaire yi day neex champion bi ñëwee day neex bilaay walaay. day neex waaw ñaxante rek bilaay walaay. incha allah bon. bi mbur la waree yàgg. dëkku làmb la yéen a ko gisandoo fii ci arène Adrien Senghor bu ñu ñëwee lépp li nga xamee ne moom moo neex amateur yi ñu noonu la ñuy def waaye maa ngi gis ndeysaan xale yaa ngi noonu xale yaa ngi nii yëpp mënu maa lim mënu maa ndax gis naa mbaartin gis naa seen kumpa ndax tey lamb ji a ah, ni ma koy laaj rek yàgg dama xamul ndax ci woote bi la ñoom ñoo namb lamb ji wala ñoom ñoo namb lamb simple ñoom mbëri ci boppam dañoo ñëwal seen bopp amul ku des loolu lañ mën a wax commencé na diis lamb jaa ngi commencé fees waaye manga moo toll noonu waaye bésu calis tam mënta yomb yàgg ñu dem ba ci kanam la ilaha illallah Reug Reug a noonu ay Reug Reug waay yak xoolal bi la muy def la ilaha illallah public bi jóg na fu ñu jëmati tey xoolal nee na day door tey day caw <laughs> ma xale bi xoolal ma lii laa ilaaha illallaah na ci suuf sànni ko ci diggu tànk ya hey lamb ca ga ndeysaan ñaari xale xamante nanu seen kun ba signalé na ndeysaan seen kun ba dafa mel ni dafa gaañu ba ba léegi ba muy bare am na lu ne ci tànk ba am na lu ne ci tànk ba yàgg Mbu Reyna la doon bëreel waaye dafa signalé am loo xam ne xam naa blessure lay doon toog na. ndeysaan jalal ma xale loo ca ngoon laa <laughs> ilaaha illallaah gone gi xorom bëri bay na te mën a bëre saa bu yëngatu mu ngi noonu yàgg làmb ngi noonu rawatina lit samp Reug Reug ak général bu Malika ndeysaan eh, eh. duel boo xam ne commencé gul waaye li ma ci jaaxal ñaari mbër ngi taxaw xamante nanu avertir na général xoolal public baa jóg am na lu ñuy kaas nangu wunu bugu ñëwoon ñëw attention jàppante wat nanu ah Reug Reug jàpp na ko Reug sol na ko ah Reug Reug na ngem waaye général tam am na loxol droite ba ca ngem la général moo koy pince mais attention est-ce que ça sera facile comme Malika Reug deux lutteurs deux combattants qui se connaissent attention avec une prouesse technique Reug Reug yëkkati na ko yëkkati na ko général ba lal ko mbot bañ tel combat quel combat quel combat la ilaha illallah général dugg na Reug Reug yëkkati na ko waaye ah, ay Reug Reug xoolal public bi déggal li déggal li jël xoolal ma li rek rek abi sifle na Ka Reug Reug Reug Reug moo xaw a jàkkaarloog nun général moo ngembo ngembolu weex li Reug Reug ngembu bi vingt seize minutes fii ci arène Adrien le avril Reug Reug Général Malika Reug Reug ñu ngi bëgg a naxante kenn ku ne di xool fi ngay jaar sa morom jàppante nañ ci loxo jàppante nañ ci loxo jàppante nañ ci loxo waaye bàyyante nañu waa Leewtoo ay combat bi a ah, général dem na rëg-rëg bañ na jàppante nañ ci kaw ñoo ca jàppante ba ca kaw général a ngi jiital tànku càmmoñam bi waaye rëg-rëg tànk ndajoor la jiital ñu xool kenn ku ne am nga sa point fort ndeysaan déggal woykat ba ak tëggkat ba organisé par Manga 2 arène Adrien Senghor attention Reug Reug dem na na ko général patt na général mu ngi koy oñ mu ngi koy oñ attention général Malika daan na Reug Reug champion bi daanu na xale bi daan na Reug Reug ma xale bi daan na Reug dal Mali ñoom ñëpp a jëkk taxaw lu xew Reug Reug a daanu général defati na affaire on appelle à tout le monde demaat ci calme bi rangé wu kenn ku ne service d'ordre baa ngi defar les policiers sont obligés de sécuriser même général puisque yuxu yi dañoo bëri jaxasoo bi xaw a bëri waaye loo ci mën di dégg général a ngi nii ci ay jumtukaayam xoolal service d'ordre bi lu muy def ñoom ñëpp ay liggéey fu ne nii général a ngay waaj beneen la. di sa noonu xele baa noonu xele de la sécurité on est arrivé à pouvoir vraiment contenir mbooloo mi xele noonu mu ngay sotteeku ndox ma bàyyi na siidaay général Malick à vingt heures trente et ci adrénaline Senghor mbuday ne siiday a gen ta saxre na lebel ngunjaan jak attention jël na tànk ba daan na ko général daan Malika ak Yekini demi-finale boobu lana attention jàppante nañ ci kaw général Malika ah jàppan na ko Général Malika war na ko war na ko ndomba ah il a surpris il a surpris dans attention mu koy daaneel mu ngay bañ mu ngay bañ eh Général Malika mu koy juutal ndax dana nangu eh mbër mu daanu na ndeysaan oh. arbitre sifflé na final bi Ibou Senghor numéro 2 ak ki nga xam ne moom mooy général Malika 21 heures mooy 2 minutes ci arène Adrien Senghor combat organisé par Manga Production attention général jël na ko Ibou Senghor jàpp na tànk ba suuf ñaari batu oom na dara ñaari xale yaa ngi bare attention général a ngi cherché ñamante nanu xale yi songante nanu Ibou Senghor song na ko ah Ibou Senghor déclenché na mboot waaye final bi neex na ñaar ñi xamante jàppante nañ ci kaw jàppante nañ ci kaw attention jël na ko Ibou Senghor bañ na ñaari mbër yi dañuy daje ñoom ñaar dañuy daje ci kaw ndeysaan Ibou Senghor numéro 2 général Malika na nañuy bopp kenn ku ne yaa ngi jiital sa pied gauche ndeysaan tegante nañuy loxo ci kaw ñaari mbër yaa ngi bëre kenn ku ne teg nga sa bopp sa boppal ñaari loxo yi teente ñaari loxo yi aje ci kaw xanaa lii mooy dañoo xaw a bokk bëre en tout ñoo bokk ko mi Fédération. yàlla ko daan na ko daan na ko. Bethio war nañu béy kàllaam. borom def la ngay def. sama xarit. sama xarit. Ndiaye. donc daal di la. donc seen borom chaque jour yaa ngi koy tëral. ah tëral naa rek béy kàllaam. béy kàllaam sama xarit. kontaan naa am. Adaar Gueye la woon am na Péa Sane. ah yëgul yëgul. yëpp nag. bàyyi ma kenn amateur yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant ñoom ñëpp vraiment wax de gis naa taxawaay bi xam nga mais nag xëy rek nii la ko yàlla tudde woon quoi bëggoon naa jël lamb ji trop maa ngi leen di mosawu coono di waaw di xam ne def naa retour bu a baax ama lamb ji man. général yaa ko waxoon yaa ko def. yaa waaw santaat yàlla rek ñun ay xale lañ di jàng rek dafa guñ dara dañuy jàng rek di sant waa Malika yi nekk sama ginnaaw di nuyu sama sëriñ sëñ Ablaye Diop borom xaas di ñaan yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te wér waaw. Mhm. di sant waaw. non <laughs> ni ma leen ko waxee rek d' abord damay dem ci. Euh, waaw merci beaucoup merci kontaan naa ci yéen ma ñëw ci honorable bi honorable bi fii mooy quartier am fii mooy goxam fii la juddoo yeroo fii. je pense que aujourd'hui c'est pas au hasard moo tax ñu tuddee ko drapeau bi mais dañu gis liggéey bi muy liggéey mu nekk Joola ñu nekk ay séeréer ñu indi ko ci biir séeréer yi woon séeréer yi ne def leen dugal seen xol. loolu moo tey kan mooy buur bi. Euh, buur bi tey tey tey tey xam na xam naa ne buur bi de toute façon moo ku moo koy jox cent mille waaw kon maa nekkoon ci bopp gaal bi daal. donc l'honorable député on vous remercie. l'honorable député deux mots s'il vous plaît. waaw sinon remercier euh, Manga Production moom mi nga xam ne moo ñu def honneur tuddee ñu drapeau bi. e ñu ànd ko avec la centrale de la communauté casamançaise et les sympathisants. ñu jëlaat lépp tuddeewaat ko son excellence le président Macky Sall donc général ñu ngi lay félicité di la encourager et di wax monsieur Seck aussi bul décourager affaire yi làmb la rek ñu ni neen la ah et le vainqueur gagné na mais yow it suba yàlla na la may yëpp ay ndam yu bare. bëggoon a naan kan rek moo ko naan doon la jox donc yow waaw boobu maa ngi lay wax nag maa ngi lay sàccee moom kay ne ma koy topp jërëjëf maa ngi lay wax. allo. ba beneen yoon daañu ko jëli ba mu ànd waaye jëli moo du jóg ak ñi ko war ñëpp ndax xamante ne